Njaay Njaay Wolof di ab dëkk bi ñu sanc ci 1901 bokk ci dëkk yu gën a yàgg ci département bu Foundiougne moonte loolee taxut juróom-ñetti junni ak ñeneenti téeméer ba ni aadama ya fa dëkk ñu jàppee leen ni ay sénégalais dëgg-dëgg loolee tax ñu génn ci mbedd mi di laaj ñu indi leen courant ndox mu sell ak tali leen seen yoon bi ba mun a ñodd booba léegi mënuñu am courant. muy dëkk boo xamante ni commune Diossakh à part dëkk bi commune bi nekk moo ëpp si commune am na dëkk yi ndaw yoo xam ne ñeenti kër la ñu ngi leen di sampal courant. forage bi dañu ko gasal depuis 2013 ba léegi bâtiment ba kese moo fa nekk dem nañ si maire dem nañ fu nekk wax nañ ñu nañ ñu si mën a dimbale mais ba léegi mënuñ ci am benn solution. amuñu yoon. yoon yi baaxuñu. bugg nañ ku ñu dimbale. yoon moom ab raara la ñu dewal poussière baa ngi ñuy rey dëkk yëpp a soj xoolal ñi <laughs> seen bërëbu fajukaay bi fa nekk nga xamante ni dara la amut ci matériel la médicament waxi noppi ambulance ba taga témbe tax jigéen yu wérut ya fa nekk bu ñuy mucc ay kilomètres la ñuy def ci charrette loolee métti lool ci ñoom. ma santé bi fii ku fi feebar charrette moom la see teg yóbbu la. waaw ñu teg fi jigéen muy am doom mu am doom si yoon bi des fois sax mu ñàkk ba kanam. waaw te dañoo sonn dañoo taay ñun ay Sénégalais lañ comme ñëpp amosu ñu am ambulance benn ambulance bu paan la ñu maire bi mos ba fii ko ambulance bi mosul daw fii nii ambulance bi taxaw ci biir hôpital mu ci fi daw. sareti mbaam si lañ laa teg wala nga am doom si bi wala nga wala wala nga desee si bi gaañ. suñ poste de santé bi amul robinet dama leen wax lu leer ndoxu teen la ñuy naan ndoxu teen bi mu ngi si roon mango gi ndox mi dafa nëpp. fii daal boo fi duggee lal amu fi ku fa feebar ci karo yi lañ lay teg. ñoom jigéen yu dëkkee ci dëkk boobu bokk ci commune bu Diosone jàpp ni nguuru Sénégal da leen fàtte tax ñu leen di laaj seen wàll ci financement yi ñuy joxe ak ay machine wol. amuñu machine wol financement yi Macky Sall di joxut. bi ñu dajalee jafe-jafe yooyu nga xamante ni ñoom la ñuy jànkuwanteel tax ñu dëkkee ci dëkk ba ne li ñu soxla bu ñu ko amut ci élection 2019 yi ñu jëm kenn du fa wotee président Macky Sall benn message na la ñu joxe mooy Njaay Njaay wala fii ak 2019 su amul courant kenn du woote fii ci dëkk bi politicien dootu fi dugg di lëmbee dëkk bi ñu doon doomu dëkk bi ñoo jël seen bakkan tey ko pour dëkk bi Njaay Njaay wolof Alhassane Ba Walfadjri